asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw wa rahmatullahi mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen nuyoo fii nga xam ne baaxoo nañ leen fee nuyoo ci waxtu weeru koor gi waxtu wuñ ci duggee muy ci jumaay Tuubaa jiital ci nuyoo bi nag ak siyaare bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murit di siyaare mboolem njabootu xaadimu rasuul di ko ñaanal yàlla sunu boroom mu dolli ko fee yàggal te wéral ko ba naa li mu am ngir liggéeyal ko maamam xaadimu rasuul mu def ko te nu ànd kook moom di leen siyaare ci pàkk bu sell bi muy jumaay tuuba ci njiital daayira muxaddimaatul xidma bi nga xam ne ñoo yore liggéey bi fédération daayira Serigne Touba yi nekk Espagne at bu jot ñu baaxoo ñëw fii di indi seenub liggéey bu jëm ci wàllu ndog yi nga xam ne baaxoo nañ ko taxawee ci weeru koor wu nekk euh, jëwriñ ji nga xam ne moo jiite liggéey bi muy Serigne Mbacke Ndiaye ak Serigne Mor Tambédou président d'honneur bi ak ki nga xam ne mooy mu coordonnateur xit ma ci Espagne muy Serigne Maam Daam Lo ak sëriñ Assane jóob mi nga xam ne moo jiite diaspora bi ci mu Muxaddamaatul Xidma tey nag ñu teew fii ci seen ndigal ngir indi liggéey bi nga xam ne moom la federation bu Espagne indi jëmale ko ci ndog yi nga xam ne moom la waa Muxaddamaatul Xidma di taxawe ñu jiital ci liggéey boobu ki nga xam ne mooy jëwriñ ji muy Serigne Xaafiya Buso ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci Muxaddamaatul Xidma yëpp yim ko àndal ñu ngi leen di jox ab nuyoo akub siyaare bu bàyyikoo ci fédération bu Touba Espagne nin ko baaxoo defee nag at bu jot bu nu duggee si koor gi rek mbokk taalibe yi nekk ca Espagne danañ dajale li nga xam ne moom lañ am indi ko ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba fii ci jumaa ji mu jëm ci li ren nag yàlla dimbale nañu nañ ko baaxoo defee rek lañ ko defee andi nañu fi lu toll ci ñeenti million ak téeméeri junni ak juróom benn fukki junni muy million millions 800 mille ñu barkeeloo ko ci ndogu yi nga xam ne moom la ñuy taxaw fii ci jumaa ji muy liggéey boo xam ne ña ngi ciy soññ mbooleem daayira yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal nekk Espagne jamono bu nekk rek ñi di ko bàyyi xel xam ne liggéey la bu am solo Espagne boo xoolee la fa nekk ci ay daayira war na mat soixante daayira liggéey bii ña ngi ciy tàllal loxo mbooleem daayira yépp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waxtu wuñ ci jugatee jëm si rek ànd koog mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal fédération bi ndax liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la liggéey bu ñu defal Serigne Touba la fii ci jumaa ji muy liggéey bu am solo ñu ngi sant nag mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal nekk Espagne di leen gërëm ci turu jëwriñ ji coordonnateur bi muy sëñ Maam Daam loo mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi mu ngi sant mboolem dayre yi nekk Espagne ci seen taxawaay ci liggéey bi ak liggéey ko jiitu. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom mu gën leen a defal ak man ba liggéey bi nii ñu ci taxawee ren bu déwénee mu gën a yokk ndax loolu mooy yéene ji bu na sañoon bu ñu dikk fii milliard la ñuy takk andi ko jébbal ko sëñ xaafiya buso ak ñi mu àndal ne leen lii kat waa Espagne ñoo ko barkeloo ci ndog yi loolu ñu ngi ñaan ngeen ñaanal nu ko bu baax a baax yàlla gën a jàpp ndal xewal yi ba yéene jooju nga xam ne mbokk taalibe nekk Espagne am nañ ko ñu mën koo def ci barke xaadimu rasul kàddu yi sax duñu ko guddal euh, ndax jëwriñ jaa ngi nii toog muy sëriñ maam daam loo danañ ko jox kàddu gi bu ko defee moom itam mu am kàddu yu mu yëkkati bu noppee ñu jox sëriñ Ablaye Diop mi nga xam ne mooy trésorier bi bu noppee itam sëriñ Babacar Thiax euh, di jëwriñu fédération bu euh, Barcelone moom itam danañ ko jox mu yëkkati ay kàddoom di jaajëfal mboole mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu teewandool fii ñu bàyyi ko Espagne xañ na du ñu mën a tudd ñëpp waaye ay ay ay daayira yu bari teew nañ fi yoo xam ne si ne Espagne la bokk ak nekk ak ñoom ñu teew fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jëfal bu baax a baax sëñ Cheikh Gaye Diop moom itam Euh, comme ni ko sëñ Assane di waxee rek jamono bu nekk bu ñu yëkkatee liggéey bi da koy ànd ak ñun ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal xam naa kon dañuy daal di jox sëñ maam Dame Lo moom seex Moustapha bu ko defee moom mu yëkkate ay kàddoom moom mi nga xam ne mooy coordonnateur mu xaddimaatul xidma ci Touba Espagne. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa taalaa wa barakaatu yéen waa. dayratu muxaddimatu xidma seen mbokkum taalibe maam daam la moom Cheikh Moustapha al Karim moo leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen balu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom boole nu jéggal di jiital ci nuyoo bi sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy président bi di imam bi ak Serigne Abdoulaye Bousso maam Astad Serigne Abdoulaye maam Thierno. ñoo ngi leen di nuyu di jël nuyoo di ko teg seen loxo ñu jàllaleel ñu ko ci mboolem ku nekk ci daayira Muxaddamatu Xidma comme noonu ko sëñ sii di waxe ñuy nuyu waa Espagne gépp na nga xam ne ñoo nu fi yebal euh, ci turu Serigne Assane Diop mi nga xam ne mooy président Muxaddamatu Xidma diaspora bi comme noonu ko sii di waxe woon di ci teg sëñ Mbàkke Njaay sunu jëwriñ jëwriñu fédération bu Espagne ak Serigne Mor Tambidou président dener sëriñ lim na aussi euh, di lim na ko bari jërul ñu koy limaat képp koo xam ne nii daal di ci teg sëñ Abdoulaye Diop mi nga xam ne moom la ñu àndal nga xam ne toujours mu ngi yëngu ci Moukhaddamatoul Khidmatoul Rasouliyya di ci dox jéego yu solo di nuyu ñëpp daal bàyyiwuñ kenn El Hadj Abdou Ndiaye suñu kilifa suñu mag El Hadj Adou Touré xam naa bu ñu limee ñëpp dañuy juum rek waaye. mboolem koo nekk Espagne tey jëwriñ ñoo ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la soññ bu baax ci muxaddimatu xidma ndax pàkk bu tedd bii nu nekk kat képp ku fi yàlla li nga fi liggéey di fi indi sa alal kooku war ngaa doolee góorgóorluwaat baax takk sa laxasaay te it li nu ko indee tam muy ndogu yi nga xam ne at mu ne ñu indi ko ren lii nu fi indi xeeb nan ko lool te lan indi woon daawet xeeboon nan ko kon nag ngeen ñaanal nu ba bu déwénee buñ fii ñëw comme noonu ko sëñ Sidi waxe suñ fi mënee indi milliards ñu indi ko fi tey soññ itam daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci Espagne yëpp nga xam ne daayira yu bari lañ te ñu ci bari ah duñ ci participer nu di leen soññ di leen ñaan ñoom itam ñu gën a góor góorlu ànd ak ñun liggéey bi comme ni ñu ko bëggee comme ni ko jëwriñ waxee jëwriñ wax na ko suñ Mbàkke Njaay soññe na ko kon ñu jéem at mu ne rek nu fexe ba dayra yëpp nekk benn a ah, ñu di ci liggéeyal sëriñ Touba ndax euh, lu am solo la yaakaar nañ ne benn liggéey mënu koo gën a féete kaw ci àdduna kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ak ñépp di bal ak ñëpp di ñaan sun borom it mu boole nu jéggal ñoo ngi bàyyi foofu kàddu yi di jàllale sëñ Abdoulaye Diop mu àggale li ci des. waañ ñoo ngi leen di siyaare bu baax fii ñu leen baaxoo siyaare ci jumaa ji ñëw fekk si daayira bi nga xam ni mooy daayira mu xàddimatul xidma ci njiital sëñ Afe ak sëñ Abdou Lahad Boussa ak kilifa yi ñu bokkal daayira bi yëpp bokk Espagne yi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax den xamal ni rek lii jataay bi jataay bu yàgg la bu yàgga yàgg la. defe naa Espagne moom bokk na ci dëkk yi nga xam ni am nañ ab taxawaay lool ci jumaa ji waaye nag dañuy ñaan ngeen ñaanal ñu noonu ko sëñ sii di waxee léegi taxawaay bi yokk ndax euh, jamono yi ci ginnaaw ci lañ soppi liggéey bi am luñ ci yeesal jiital bàyyi daam loo mii moom Cheikh Moustapha ngir mu nekk coordonnateur bi waaye loolee lépp gis nañ ni biñ ko defee am nañ ci bu baax a baax ak yokk kon bàyyi daam yàlla taxawaay bi yàgg ci barke Cheikh Moustapha yàgg mboolem ñi ngi ko àndal suñ Assane waxoon ne nag buñ ñëwee nañ soññi bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk liggéey bi te nekk ci Espagne muy fu fi ab dëkk mën a nekk ndax wax nañ ni ñu ngi ci fanweeri daayira yu teg yoo xam ne dañoo fédéré boo ko boolee daanaka da ngay dem ci juróom-benn fukki daayira comme niñ ko waxee kon defe naa li nekk Espagne ci ay daayira taxawaay yi nga xam ni war nañ koo def buñ ko defee akana liggéey bi dana gën a yokk bu baax a baax a baax. kon nag ñi ngi ciy woo ñëpp ndax liggéey la boo xam ne ku fi ñëw ak mbooloo mi nga xam ne moom ngay fekk fii ci jumaa ji yaakaar naa lépp lu ñu la ci laaj di ko joxe ndax mm, li fii daje ci mbooloo macha allah waaye loolu lépp ñoom waa daayira bi muy ma xet ma jóg di ci liggéeyal sëriñ bi. kon defe naa kuñ ni kaay ñu liggéeyal sëriñ bi ci jumaa ji loolu moom war naa doon feerte ci yow war naa doon ak cawarte ci yow kon ñi ngi soññ ñëpp fépp fu am membre nekk ci Espagne daal ngi lay ñi ngi lay soññ ci liggéey di sàkkoon nga soññee ñu xam ne ñëpp ay soññeekat la kon xam naa dañuy jox sëñ Babacar caax kàddu gi moom it mu gën cee def ak yaatal waaye daal ca kàddu yi moom gënoon naa yaatu euh, sëñ Assane moom bëggoon na daal kàddu yi yaatu lool ci biir Espagne ba fu fi waaye mën a nekk ci àdduna bi nga gën a jàpp ci liggéey bu jumaa ji maam yëmariwuñ sax kàddu yi Espagne waaye fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi rek ñu ngi lay soññ ci liggéey bi nga am ci ab taxawaay kon xam naa sëñ Babacar bisimilah. bisimilah rahmaani sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam taslima asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah taala barakaatu ah, ñoo ngi nuyu ñu teew ñëpp xam naa ñu jiital ne Cheikh Mouhamad Mountakha yàlla na yàlla def mu yàgg fi loolu te ba naal yi mu naal ci yoon wi suñu borom àggale ko ci jàmm ah, loolu weesoo ñoo ngi nuyu waa jotaay bi yëpp di ci jiital suñu waajur sëñ Afia Bousso jaarale ci nuyoo boobu ci eh, ci Abdoul Ahad yi fi toog sëñ Abdoul Ahad maam Asta sëñ Abdoul Ahad maam Thierno eh, ñu baal ñu jottali ñu nuyoo ah, sëriñ bi di wax ni rek kàddu ñuy yëkkati moom dañ koy yëkkati ci suñu turu coordinateur eh, sëñ daam bu sëñ Moustapha Karim Euh, waaye it di ko yëkkati ci ki nga xamante nii suñu jëwriñ la ci liggéey bi muy sëñ Assane Diop ñu ànd ak moom liggéey bi jàpp naa ne sax euh, maa ngi koy wax léegi euh, kàddu yi nga xam ne jàllale nañ ko fi sëñ Ablaye jàllale ko sëñ Sidi ak sëñ Daam doyoon na sëkk waaye dafa mel ne soññee yi ñu def te ñu ànd liggéey bi ak suñu jëwriñ sëñ Mbacke Ndiaye li ciy feeñaat rek mooy mooy soññee yi ñu wax. nan la ñuy def ngir liggéey bi gën a ñoŋ gën a kawe loolu nag dafa laaj organisation naa ne foofu rek laay lay laay laay laay kiyee samay kàddu mooy nan la ñuy fexe ba liggéey bi gën a mën a nasu liggéey bi nag euh, nasu gi li koy def defe naa ne dañ koy teg ci ay xalaat yu gën a kawe kawe li nga xamante ne nii moom la nga xamante ni moom lañ doon def at mu ne. defe naa sëñ Mbacke Ndiaye sax bu ngeen xoolee ci suñu jotaay mi ngi koy wax. defe naa tey la am fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom ci koor gi. waaw ñuy soog a teew kon nag suñu teewaay it euh, war nay mën a gën di ñoŋ war nay gën di mën di taxaw war nañ koy gën di mën di organiser ba nga xamante ne nii li nga xam ne day symbole ci yoonu murit muy jumaa ji ñu xam ne dafa bokk suñu liggéey day sax day sax suñu liggéey nag waaw day suñu liggéey dëgg la liggéey yi bëri na sumb sumb yi bëri na waaye day liggéey bu nga xamante ne nii liggéey bu kawee kawe la ñi nga xamante ne ay jëwriñ lañ muy sëñ daam mii di ko jiite ko ku ci nekk gis na soññee yi muy def loolu nag waru ñoo xaar sax ñu soññ ci leen bi dañ leen a war di fekk si ànd ak ñoom liggéey bi euh, taxawu ko ci taxawaayeen bu nga xamante ni nii kenn du nañu ñëw leen waaye dañ naan ñu daw leen waaw gën a daw gën cee jub ndax buñ ci gënee jublu rek lépp lu liñ ci bëgg a dëxëñ dinañ ko ci dëxëñ du doon bu boobaa rek ci weeru koor waaye day doon ci liggéey yi fi sumb yëpp te ngeen xam ni mu tëddee te boobu ba léegi ñu ne ci loolu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dëbb kàttan Euh, ak i xéewal yu nga xamante ne dañ ko ci mën a def bu wér a wér te mu sax dàkk rek mu sax dàkk ndax day symbole ci yoonu mu murid jumaa ji moom lépp lu ñuy wax rek dafa war a jiitu suñu liggéey loolu nag la jëwriñ nii wax ne nañ ko gën a fànnoon nañ ko gën a bàyyi xel ba nga xamante ne lu ñuy sumb lu ne ñu boole ne lii moom du lu mën a ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh